أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suura almaida bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël tey aaya 112 113 114 115 ñeenti aaya la yu nu sunu boroom subhaanahu wa taala di jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy jafaa'ul yahud wa ghatrasatihim wa suu adabihim ma anbiyaihim إذ قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وقالوا لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء danañ jàng tey waw koŋ gu yahud yi waw ak ngand ngandlu gi ñuy ngand ngandlu bis bu nekk di rëy rëylu waaye danañ jàng tey seen ñàkkuk teggin seen ñàkk yar ànd ak seeni yonent seen wow koŋ ak seenug rëy ak seenu ñàkk teggin ñàkk kersa ci sunu boroom waaye ba ci yonent yi yàlla di yónni subhaanahu wa taala ndax alquran nettali nanu bis ñëw na Moussa ne leen kaay leen ñu ànd dem xeexi ñu ne ko yaag sa borom ànd leen ngeen dem xeexi ñun ñoo ngi fi toog bougé wuñu mètre bu dee yàlla la yónni yaag yàlla ànd leen ngeen dem xeexi loolu looy dégg ci loolu mooy yàlla ñàkk teggin gi mu wax ne yahudi dañoo ñàkk teggin loolu rek doy na ci misaal ab yonent bu yàlla yónni ñëw jóge ci borom bi indi yonent yàlla di ko leeral di ko jàngale yàlla wax ko ànd leen ak moom xeexi moom yonent bi mu wax leen li yàlla wax amul luñ ko tontu mooy yow yaag yàlla dem leen ngeen xeex inna hahuna qaidun ñun ñu ngi fi bougé wuñu yemuñ ci Muusa waaye Isa moom tamit ñamal nañ ko wàllam ndax bis ñëw na ñu ne ko ndax sa borom mën naa wàcce benn table wala benn plate bu rëy mu bàyyee ko asamaan ñu lekk ci ndax yàlla mën na loolu su ma juumulee mooy aaya bi ñu war a jël tey loolu rek won la ne ne ñàkk teggin moo tax ñu wax lee ñu wax Moussa yemuñ ci Moussa waaye ñu wàcc si ci Isa laaj ko ab laaj ne ko ndax sa borom mën na wàcc ab palaat wala ab table bu bàyyee ko asamaan am lekk ki defar asamaan kay defar suuf defar lekk defar naan defar lépp kooku ab taabal dana ko të wala ab bool dana ko të dëgg-dëgg waaye ñàkk teggin rek ak reewande moom la yahudi di wane fu ñu dem ñaareel fii qawli isa lahum moo tax isa ne leen ittaqullah ragal leen yàlla ci wax yi ngeen di wax gis nga wax yi yahudi di wax léegi dafa juddu sax ci biir julliti sénégalais sénégalais yi da ngay dégg ñuy adressé yàlla baat yu ñàkk a teggin reewande goo xam ne lii doo xam fu mu jógee waaw naan yàlla sawaay di tuddee yàlla sawaay di tuddee yàlla day jaay ci marché oh subhanallah baat yoo xam ne ay boo dee yàlla towal xeer boo dee yàlla towal ay doj baat yu ñàkk a teggin yooyu yahudi doon adressé suñu borom léegi moom la yenn julli di yor waaw ah ay yàlla xale bu góor la quoi léegi pantalon lay sol jean seere yor karawaasam dafa mel ne yàlla seen moroom la jalla jalaaluhu ñàkk a wekk yàlla googu nekkoon ci jikko yahudi moom la yenn julli di jël léegi moo tax ba ñu waxee seen wax yi lan la leen Isa tegal mooy ragal leen yàlla lu tax lu tax Isa ne leen ragal leen yàlla wax ji ñu wax moo judul wax ji ñu wax moo jaaduwut moo tegginuwut ci jëme ko sunu borom moo tax mu ne leen ragal leen yàlla ittaqullah mu ne dalla ala annahu qaalu al batil mooy li muy tegtale mooy dañoo wax caaxaan mooy ndax sa borom mën na wàcce taabul mu wàcce kaw asamaan bu am lekk ndax loolu yàlla mën na ko allahu akbar kama anna qawluhum wa na'lamu an qad sadaqtana dalla ala shakkihim wa irtiyabihim wax ji ñu waxaat isa ci aaya bi ne sa borom ndax mën na wàcce table bu am lekk jóge asamaan isa ne leen ragal leen yàlla nee na loolu day tegtal ne ñoom dañoo réer ndax bu ñu réerul woon isa du leen wax ragal leen yàlla waaye beneen buy wane ne dañoo réer mooy dañoo sikki sàkka ci seen boroom moo tax ñu ne bu yàlla wàccee taabal bi de kon danañ ko dëggal waaw danañ dëggal yàlla xam ne yàlla am na danañ dëggal ne ponkal la mën na ndax màggaayu yàlla ndax kàttanu yàlla ndax darajaam ak mën-mënam ndax ci ay bool yuy wàcc yu jóge kaw asamaan am lekk lañ ko war a xamee yàlla kay bu dëgg-dëgg ku bëgg a xool kattanam jàngal aayam yi aaye yàlla yi suñ xoolee aaye yàlla yi xam ne yàlla subhanahu wa taala mooy borom kàttan mooy borom mën na aaye yi rek ñun suñu bopp ci aaye yi lañ bokk wa fi anfusikum afala tubsirun yéen rek xool leen seen bopp ku nekk na xool boppam fi mu toog ku nekk fi nga toog yor sa téere xoolal sa bopp kan moo lay fekk fi nga toog nga ne ko man de sama bët yi bëgguma woon mu nekk fi sama ginnaaw la waroon doon waaye di nga nangu ne sa bët yi fii ko yàlla placé fii dong la mën a nekk ci yow wala yéen gars yi am ngeen proposition fu ngeen di proposé seen bët yi fu muy nekk na am ko proposé feneen foo gis ci sa yaram ne bët yi bu ñu ko fa placé woon foofu mooy gën a rafet aywa bakkan bi nag kuy wax ne ma xanaa ba sama bakkan bi bu ñu ko indi woon nii gémmiñ gi nag maanaam li la yàlla defal ci cër yi benn bu nekk place am la ko teg yow amoo ci sikki sàkk buñ la doon tànnloo fan nga koy def yow da nga naan fii mu nekk baax na acca nañ dem ci hôpitaux yi ñu jëm ko opéré loxo bi ñu dindi ko defal la ko ci sa dënn bi nga xool ah wala sa tànk yi buñ ko kole woon def ko benn di nga gis ne yàlla lim def noonu kese la moo tax mu ne dinaa leen woon samay preuve ne man maay yàlla wan leen samay kéntaan ba ne leen duut baaraam ci seen bopp wa fii anfusikum afala tubsiruun sa nurihim ayatina fi l afaq hatta yatabayyana lahum annahu lxaq du ma dañ di leen won samay kéemtaan samay kattan ci horizon horizon yi ngeen mu ne fang leer nañ ba ngeen xam ne man yàlla man dong maay dëgg moo tax comme dañoo yor sikki sàkk ci seen boroom ne bu leen Isa ñaanalee yàlla laaj Isa ndax mën na ñaan yàlla ab aaya ab ab bool dajje ko kaw asamaan ñëw ci suuf ndeysaan comme dañ cee sikki sàkk wa naalamu an qad sadaqtana ñu xam ne kon yow mii de wax nga dëgg léegi nag dëgg la yàlla la yónni mu ne dañoo sikki sàkk ci yàlla kon seen ngëm dëgërul te kuy sikki sàkk ci yàlla yow moom bu yeboo nga xam ne bokk goo ci jullit yi afillahi shak yàlla dafa laaj ndax ne man am na ci man sikki sàkk ndax nañ war nañoo sikki sàkk ci man afillahi shak ñaareel ñetteel mooy mashruiyatul aada addiiniya li ibadatillah bi salaa wa zakat shukran lillahi taala fi lislam wa fi lislaami mu ne iidaani idil adha wa idul fitr mbokk yi ci sun diina jii di lislaam yàlla def cee yoonal ay feet feet du lenn lu dul xew-xewu diine boo xam ne dañ ciy jaamu yàlla loolu mooy feet tey dem nañ ba bu ñu waxalee feet dañuy jàpp ne bis yu ñu war a mooy yàlla la moo tax sénégalais yi yàkkamti feet ndax ñoom feet ci ñoom lu dul lekk ak naan ak solu ak mooy yàlla waaye feet ci lislaam mooy li ibadatillah pour jaamu yàlla la loolu lan moo koy jàngale mooy aaya bi ñoom ñu wax isa mooy lan bés ba bu ñëwee nuridu an nakula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna alayha min ash-shahidin bés bi bu ñëwee danañ ci lekk dalal ci sunu xel féexal ci sunuy xol ñu yëg ne wax nga dëgg loolu moo lay won ne kon feet bi su lekk la bi su naan la waaye bi su jaamu yàlla la tabaraka wa taala waaye bi su sant yàlla la sukr lillah képp ku am feet yëgal ne da nga war a sant yàlla bu am ngénti da nga war a sant yàlla bu la yàlla dundalee ba ngay takk soxna da nga war a sant yàlla mais xew-xew yi yëpp tabaski ñu war a sant yàlla korite dañu war a sant yàlla mais gis nga sunu cérémonie yi ñuy am ci sunuy dëkk yi ci sunu kër yi yëpp léegi mooy yàlla la lu dul illaa man rahima rabbuk ndeke dinañ jàng tey ne yoonal gi ñu yoonal ci ñun ci sunu diine yoonal ci ñun feet pour jaamu yàlla la pour julli pour tudd yàlla wa zikr sukran lillah julli sant yàlla mu ne islaam nag yàlla baaxee nañu may nañu ñaari feet muy korite ak tabaski ñaari feet yi dong la lislaam am amul beneen waaye loolu ku ko wax waa Sénégal ñu ne la yow da ngay caaxaan rek islaam ñaari feet la am amul ñett amul ñeent Sénégal ñaata feetu islaam la am oo leen laaj xoolal fii bi gën a rëy sax nga xam ne ndeysaan dañ ko boobu moom dañ ko islamiser fal force mooy tam xarit wala ndeke même tam xarit bokkul ci feetu lislaam yi bokku ci islam ñaari feet kese la waaye Sénégal dañuy feetu di feetu di feetu di feetu ba ku sa muus jur sax di nga ko feetal waaw da ngeen ñëw gars yi sama muus mi dafa am doom dama koy ngént gis naa ku doon ngénte fas génn un million di ngénte fas mosoon na nekk premier ministre Sénégal waa jooju doon ngénte fasam ndeysaan allahu akbar ñii di ngénte ay xaj ñii di defal ay muus anniversaire yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko ñeenteel mooy man ashaddu naas azaba yowm alqiyama ñan ñoo gën a tar mbugal yowm alqiyama ci nit ñi ñan la yàlla gën a taral mbugal yowm alqiyama ñi ci njëkk mooy ala firawna waa kër firawna sunu demee yowmal qiyaam ña fa gën a tar bugal waa kër firawna ci ñu lañu doon ñaareel wal munaafiquuna ak naafiq yi yàlla moo ko wax aala firawna yàlla nee na dinaa leen ñamal mbugal mu saf sap waaye naafiq yi inna almunaafiqina fi darakal as inna almunaafiqina fi darakal asfali min annaar yàlla mu ne naafiq yi kal bu mujj ci safara kal bi kal bi ñoom foofu la ñuy nekk benn borom xam-xam mu ne xam ngeen xooñ ñu ne waaw mu ne naafeq yi ñooy xooñu safara waaw loolu moo gën a gaaw a dégg du xam ngeen xooñ lu tax xooñ nekk xooñ mu ne sa soxna buy togg bu xasee sóor ah bu dindee ci tay bi daal di dugal ceeb bi ci biir cin bi mu ne pepp ceeb yi ñàkk sens ñoom ñooy wàcc ci suuf bu ñu demee ñoom ñooy nekk xooñ lu tax ñu xooñ ndax foofu moo gën a tàng yàlla nee na yowmal qiyaam naafiq yi laay dugal safara foofu lu nañ ci yàlla musal mu ne waman kafara min ahlil maida ñetteel bi mooy ñii nii weddi woon bool bi wala taabal ji yàlla wàcce woon ci kaw asamaan ndax ñoom ñoom ñoo engagé yàlla isaa sartal leen ñu ne yow Isa boo ñaanee yàlla taabal ji wàcc ñu lekk ci féexal sunu xol dalal sunu xol ah sunu borom daal leen di tegal ay sart nag ne leen danaa ko wàcce de waaye cëy su ngeen ma weddee danaa leen mbugal mbugal moo xam ne àdduna bi mosuma koo mbugal nit kon ñetti groupe yi ñëpp seeni dalil ñëw na ci alquran ne ëllëg yowmal qiyaam ñoom ñooy gën a metti mbugal ñoom ñooy nekk xuuñi safara safara fi gën a tàng ñii la fa yàlla dugal ñetti groupe yi waa kër firawna naafiq yi ak ñi weddi woon taabal ji nga xam ne moom la yàlla wàcce woon jële kaw asmaan cheikh mohammad antal yowma taqra lana al ayat bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء allahu akbar قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك allahu akbar وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين بارك الله فيك يقول تعالى لعبده ورسوله عيسى واذكر sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu moo ngi wax ak ndawam li tudd Isa jaamam ba yonentam ba mu ne ko yow Isa fàttalikul keroog ba may dee ñooñu ñuy wax xawaariyiin mooy cuubkat ya wala nappkat ya seeni firi weesu woon na ci aaya yi nekk sunu ginnaaw id qaala alxawaariyuun yow Isa
yàlla yow yonent bi lay waxal wala Isa lay waxal ah
ni ngay turee dafa mel ni yàlla Isa lay waxal ni fàttalikul wala yonent bi lay wax fàttalikul
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم سنو بروم من يوحك عيسى عليه السلام ديكو فاتلي هم؟ يقول تعالى لعبده يا لانجي فاتلي عيسى ورسوله ندوم عيسى منك واذكر إذ أوحيت إلى الحواريين ها بروم بي ci xabaar bi muy xabaar Isa ci mbiram yowmal qiyaam ca mbiram gaa yi nga xam ne ñoo nar a lekk ci ndab lii ba pare te duñu jëfe ji li yàlla wax lan la leen waxoon mu ne aminu bi gëm leen ma wa bi rasuli qaalu amanna wasat bi annana muslimun seedeel ne ñun gëm nañu yàlla léegi nag mbir sa aaya bi mu ngi doog a ñëw waale muqaddima la woon mu ne id qaala alxawaariyun hal yastatiu rabbuk léegi da doon fàttali li passé muy wax ak ñoom ñoom ñi nga xam ne ay cuubkat lañ woon wala ay nappkat loolu mooy xawaari yuun ñenn ñi ne nañ cuubkat lañ ñeneen ñi nappkat ñenn ñi ne mooy ñi sax ci seen ngëm dañoo dëggu ci seen ngëm noonu la leen borom xam-xam yi firee ñoom xawaari yuun yi lan lañ wax Isa ñoom ñooy wax ak Isa lan lañ ko wax ñu ne ko yaa Isa waaw yow Isa ibnu Mariama doomu Mariam laajoon nañ dars bee passé lan moo tax ñu ne Isa ibnu Mariam mooy amul baay juddoom kéemtaan la ruux la min Allah ruux la bu bàyyeekoo ci yàlla yàlla daal di koy may Mariama moo tax nit su fekkente ne dafa juddu ci njaaloo kenn amul droit dakkantale ko baayam ndeyam lañ xam ci ndeyam lañ koy yóbbu parce que boo woy bi wóor Isa ba mu nekkee kéemtaanu yàlla nekk ruux bu bàyyeekoo ci yàlla tabaraka wa taala amul baay yàlla da koo dàkkantale yaayam yow xawaari yu ni bañ ne Isa doomu Maryam hal yastatiu rabbuka ndax sa borom mën na yuti wa yarda ndax mën na ndax dana nangu sa boroom rabbuka xolal ñoom xawaari yu nii lan lañ waxoon démb seen tafsir mooy ñi dëggu seen ngëm lan lañ firi woon est-ce que ku dëggu ci sa ngëm booy adressé nit lan lañ waroon wax ndax sunu boroom bo waaye ñu ne ko hal yastatiu rabbuka lu tax waxuñu rabbuna ñu jël yàlla adressé ko rek Isa est-ce que yow sa borom mën na loolu la ñu waxoon Moussa demal yaag sa borom ngeen xeexi gis nga nit soo gëmee yàlla ngay wax ak ay jullit loo leen war a wax sunu borom mais waroo waroo leen wax rek sa borom yow kon yow génne nga sa bopp hal yastatiu rabbuk ndax sa borom mën na lan an yunazzila alayna maidatan min as-sama ndax sa borom mën naa wàcce benn taabal jóge kaw asamaan wàcce ko ci suuf almaida alxawaan wa ma yudaw alayh aw ittaam wal muraadu biha huna attaam ndax sa borom mën na wàcce lekk jële ko kaw asamaan wàcce ko ci kaw suuf ndax yàlla mën na loolu banu israil bu ñu reewul woon xamadi wuñ xam ne yàlla mën na raw loolu kan moo leen doon indi loon man naak salwa man naag salwa fan la bàyyee ko woon su dañ doon toog ba lekk jot rek palaat yi naaw jóge kaw asamaan wàcc ñu lekk bu ñu lekkee ba suur affaire yi delluwaat ñu nekk ci di lekk di lekk jamono bu nekk suñu xiifee yàlla indi leen man na ak salwa ñuy lekk ba mu neex leen ñu ne eh Moussa uddaw lana rabbaka wol ñu sa borom ñun lan nasbir ala taamil sombi bu dégg bëccëg waaye xoolal gis nga bu ñu fat ñun sonn nañ yenn saa loolu lay wax fii xale yu góor yi léegi xale bu góor boo xam ne góorul yettut xamul baayam fu muy jëlee kinkili baa bi mu naan non kër gi da ngay waaru quoi ay kinkili baa ak dëxin mbaxal rek non sonn nañ quoi bu subaa kinkili baa midi dëxin guddi mbaxal mais vraiment fekk xamul loolu mbaxal beeg dëxin bi ak kinkili baa bi xamul bu ni góor gi def ba indi ko ci kër gi yow kay comme indi woo tee ngaa lekk te noppi waaye xoolal banu israil yàlla sunu borom subhanahu wa taala di leen wàccee lekk googu guddeeg bëccëg ñuy lekk ñu jékki-jékki ba caaga ñu ne ko ñun mënatuñu ko waaw udu lana rabbaka an yuxrij lana min ma tunbitu min al ard waxal yàlla mu indil ñu loo xam ne ci suuf lay sax waaw min baqliha wa qiisaiha wa fuumiha wa adasiha wa basali nañu indil ay pataas ak ay pomme de terre ak sobleeg ñebeeg haricot yàlla ne leen ku bëgg loolu da ngay bay waaw ku bëgg loolu da ngay bay da ngay dem loolu lan leen yàlla bëgg a wax ku bëgg loolu da ngay liggéeyi waaw ku bëgg guddi gu nekk nga dem nga dem nga réere dibi da ngay dem nga liggéeyi waaw mu ngoog waaye yow bu ñu la yoralee sa biir bul taamu ku ñu yoral biiram du taamu du dëgg ah ku ñëral biiram du taamu lii laay lekk lii laay lekk day fekk mu ngi sa poos waaye comme nekkul sa poos dañ naan la raxasul kaay añ kaay ndékki kaay reer nel pat amoo droit wax waa kay banu Israël nag bu ñu doful woon alkuwuñu xam ne yàlla subhanahu du seen borom mën na lu raw loolu yow Muusa Isa laajal ñu sa boroom wax ko ndax moom mën naa wàcce lekk mu jóge kaw asamaan an yunazila alayna na mu wàcce ci ñun maida benn ndab min assama mu bàyyee ko asamaan gis nga ba ñu posé question boo xam ne ni ñu ko posé jaaduwut dafa ànd ak reewande ak ñàkk yar dafa ànd ak xamadi qaala isa ne leen ittaqullaha ragal leen yàlla ay ragal leen yàlla waaw nit sénégalais rek tey ngay wax ragalal yàlla mu mer amoon naa benn paa doomam su nekkoon lay def jardin la nekk mu jékki rek woo ma téléphone salaamaaleykum ma ne waaleykum oustaz foo nekk waaw ma ne ko maa ngi ci daara ji non vraiment soxla naa la quoi ma ne ko mbaa jaamu la mu ne non mais sa xale yi li ngeen leen di jàngal dafa ëpp ma ne ko xale yan mu ne waa jardin waa petite ma ne ko la la mu ne ma mais sama xale bi dafa xëy tey rek dama ragalal yàlla boobu léegi normalu ma quoi mais boy bi ko ah aussi xaw xaw leen li ngeen di wax xale yi mu ne xaw ma lu ma ko wax rek mu ne ma ragalal yàlla papa ragalal yàlla ndeysaan ay waay ak a neexoon nga am doom mu naan la ragalal yàlla ndeysaan xoolal nga am doom mën a ragalal yàlla nga ne loolu problème la loolu problème la est-ce que loolu war na nekk problème wala sant war a nekk ma ne ko déedéet loolu dara sekk oustaz bi leen di jàngal yenn saa yi daf leen di wax ragal leen yàlla wala boo defee lu jaadul ñu ne la ragalal yàlla xam naa baat boobu la miin rek la tàmm moo tax yow tamit xam naa bi nga waxee rek mën a la ragalal yàlla mais mu ne loolu dafa rëy waaye loolu dafa rëy quoi xale waru ko wax xale waru ko wax dafa rëy pourtant wax nañ ko sayyidina muhammad de te waxul dafa rëy yaa ayyuha nabi ittaqillah wala loolu du yonent bi ah wax nañ wax nañ ñu ko ñun yaa ayyuha alladina amanu ittaqullah ki baax kay ki baax kay buñ ko ne ragalal yàlla dafa war a kontaan ndax daf lay fàttali nga ragal yàlla Umar ibnu Abdul Aziz ndeysaan bi mu bi mu jiitee xalifa gi dafa jël benn ministre di ko fay ministre boo xam ngeen lan mooy liggéeyam ci ginnaawam rek lay toog ginnaawam fii bu ñëwee ba génn ba ñu tegal ko pilaan bi mu toog mbooloo mi toog muy atte ministre bi fii lay toog ci ginnaawam su atte ba càgg rek mu ne ko vëj ci ginnaawam gësam ko mu gestu mu ne ko ragalal yàlla ci li ngay atte kooku loolu mooy fonction ak a neexoon sunu président yi ñu fal ministre boo xam ne da leen di wax ittaqillah ah kon de kenn du wax ne non bu ñu kenn di wax ne peine de mort te dañ ko war a delloo si non loolu tar loolu avancé nañ quoi delloo si peine de mort daf ñuy delloo ginnaaw Sénégal ngay gis ñoo xam ne dañuy julli rek waaye ëllëg safara lañ jëm billaahi naxuma leen de fii am nañu julli ñu bëree bëri di woor dem ak safara lañ jëm xanaa xamul am na baat yoo xam ne boo ko waxee génn nga ci lislaam lii la yàlla wax nga ni la yàlla wax ànduma ci jëratul ngay julli wala Omar lan la rey woon waaja yonent bi daa àtte daa kóoruma ci Omar dagg bopp bi wala waxul sax yàlla ne yonent yàlla bi moo àtte daa kóoruma Omar ne ko man xaaral ma ñëw moom yaa yonent yàlla du wax ba pare ab jullit naan dàkko aaya dafa wàcc fala wa rabbika la yuminuun bu ñu demee surat ahzab dañ fay yàlla mu ne ma kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyara min amrihim warul jullit bu góor ak bu jigéen yàllaa ko yonent wax ba pare ñu naan waaye nag non non c'est que yàllaa ko wax waaye nag yàlla su waxee amatul waaye def rek yàlla moo ne ku rey nit nañ ko rey ku rey gor nañ la rey ku rey jaam nañ la rey ku damm bañ nañ damm sa bëñ ku fëq nañ fëq ku dagg nopp nañ dagg sa nopp wala loolu du aaya ku jam nañ la jam loolu bu ñu ko fi defoon léegi nit ñi yaru waaye ku rey nit dañ lay yóbbu tëj la di la toggal ceeb ba ceeb boo daawul woon lekk waaw ceeb boo daawul woon lekk daawoo lekk ceebu ginaar dañ naan tey dimanche la ginaar toggal leen ko ginaar quoi ñu defal la fruit bi nga nekkee sa kër boobu amagoo problème amagoo histoire tëjaguñ la bu bi nga nekkee sa kër boo añee pare doo lekk fruit léegi bu ñu lay indil añ kaso dañ lay indaaleel fruit daawoo naan kereen ñu boole ci kereen xoolal kuñ tëj kaso muy lekk ceebu yàpp di di lekk fruit di naan ndoxum kereen ak boisson ooku ooku te dafa rey nit dafa rey nit daax da koo rendi biñ ko tëjee mbokk mi buñ koy seeti dañ koy yóbbu lañ dañ koy yóbbu lañ wala duñ koy yóbbu lañ du ngeen ma tontu lan lañ koy yóbbul mbaxal wax leen yàlla rek yéen a ngi nii ci jàkka ngeen nekk kan lañ fi tëj mbokkam boo yóbbul ko mbaxal kenn du ko yóbbu mbaxal ceeb bu xonk cuy ah wala ginaar yàpp ceebu jën jën bu ngand boobu nu mu tudd coof jërëjëf moom la ñu yóbbul waa ji tegal ko ci banaana ak pomme ak yeneen yi ci tegu waaw ñu yóbbul ko te bi mu nekkee këram boobu amagul woon problème jëfaluñ ko loolu ku rëy nit ñu koy gate bu defee foofu deux ans président baal ko mu génn mu romb waa kër ki mu rayoon moo tax ñi naan non peine de mort dañ waru peine de mort waruñu ko delloosi dañoo reyul seen ndey wala seen baay rek ku ci jàppoon su ci waa ji jàppoon comme ni mu def ndaw si mu def ko yaayu kenn ci ñoom bi mu ko defee ba pare ñu woo la tegal la tele ñu ne waa ji lu ñu koy def danaan lakk leen ko doo wax rey leen ko danaan lakk leen ko billaahi ñoom ñëpp nag laa képp kuy wax ne waruñu defaat peine de mort wala ñu koy indiwaat bu ñu reyoon sa yaay wala ñu rey sa paap wala ñu rey sa jabar wala ñu rendi sa doom ñu rendi ko nii nga tiim deret ji gis ko nii gis paaka bi ñu jàpp waa ji ñu ne waajaa ngi nii luñ koy def doone non ni kii nañ ko tëj rek dañ ko baal naa ko doo loolu moom nañ wax dëgg kon nag dañ seet mbir mi bul wax loolu comme yow dalul ci yow seetal ñi mu dal dafa métti ci ñoom xoola ndaw si ñu fekk muy ténj di ténj jëkkëram dee mu toog di jaamu yàlla yónnee xëy suba yónnee mburu ndékki di waaj di xaar ne yaakaar ne dina ndékki ñu ñëw ci biir këram waxuma sax mbedd mi ci biir këram ci biir néegam ci biir saalam ci biir néegu biiram ñu fekk ko fa daaneel ko rendi ko rendi ko ba deret ji di walangaan ci biir kër gi ñu ne loolu ki ko def ah dañ ko war a kii rek ah ah parce que du sa yaay parce que du sa papa parce que du sa maam yow mi koy défendre yow mi naan droit de l'homme léegi nag ki ñu rendi moom amul droit Sénégal loi bi fi nekk loi bandi yi la bandi yi lay aar xoola boo jàppee sàcc ñu dóor ko boo demee police ñu ne dama nga faji ko gis nga di ngeen ko gaañee faji ko te na nga koy indil añ suñu benn pàpp fii chef de quartier la woon dañoo sàcc kuyam yóbbu kuy mi muy dox rek ba gis benn waaye takk kuy mi buum ay fan rit mu poñe waa ji ñoom ñaar ñu ñu dem police xam nga lu ñu ko wax yeew leen ko fee yow yaay indi ngooñ tey suba nga indi ngooñ yow xam nga xar moom bu mu mujjee daa xëy ñëw rek ñu ne ko xar mi de xamuñu ku ko jël fii la nekkoon billahi wallahi taala dafa xëy ñëw police indi ngooñ moo waa ji ñoo doon ay ayloo de mu xëy ñëw gisul xar mu ne ana xar bi ñu ne ko ana xar bi police mu gàddu ngooñam ñibbisi billahi wallahi wa taalahi nga te moo doon chef de quartier bi kat moom baa bi mooy chef de quartier bi waaw waaw kon nag dañ leen yeewu li yàlla wax rek kay dëgg waaw bu nu bàyyee lu yàlla wax nii rek nii rek la ñuy dund mooy dund bu bon bi mu ngoog dund waa banu israil dund yahud dund ñàkk teggin dund ñàkk a yar moo tax isaa ne leen ragal leen yàlla ittaqullah in kuntum muminin gis nga su fekkee gëm ngeen yàlla waru leen wax ak yàlla wax yi waru leen laaj yàlla laaj yi da ngeen a war a yaru waaye fii nit ñi seen kilifa yi sax lañ gën a weg ak yàlla ndax kilifa yi da nga gis fii koo xam ne duñ ne kilifa bi dee na dafa làqu day nelaw dafa làqu dafa wàcc liggéey rek waaye kilifa gi anam ñu ne daa dee te boo ne yonent bi ñu ne dee na bu yàgg gis nga gis nga di ñàkk teggin ñoom tamit kilifa gi dafa dee waaw loolu du gàcce qaalu ñu ne ko nuriidu danoo bëgg an naakula minha ñu lekk ci bu yàlla wàccelee lekk boobu ñu lekk ci wa tatma'inna qulubuna ñu dalal ci sunu xol sunu xel sunu xol hmm? ay taskunu bi ziyadati lyaqini fiha danañ am kóolute am yaqin gu wóor ne yàlla am na waaw dañ ci lekk ci ba suur dalal ci sunu xol waaye wa naalama nu xam encore an qad sadaqtana ne luy wóor tey mbir yow mii day dëggal nga nu waaw waaw allahu akbar wax nga nu yàlla am na ma nga asamaan ñaan nga ko may na la ñu daal di dëggu waaye wa nakuna alayha min ashahidin dana nekk encore ñuy seede ne yàlla am na loolu danañ wóor nusaahidu annaha nazalat min assama danañ seede ne encore bool bi kaw asamaan bii la jóge ndax ñoo ngi taxaw di xool ndeysaan benn xista bu garaaw dafa am fii benn jullit dafa dugg ci benn église jour fête bi mu ñëwee ñu xàmme ko ñu ne ko yow day bokkoo ci ñun mu ne lu tax ñu ne ko nii nga solo day taalibe yi Muhammad yi ñooy solo nii mu ne waa ci laa bokk ñu ne ko comme dugg nga suñu église nag tey doo fi génn lu dana la poser ay questions mu ne bismillah ñëw leen benn làbba jóg ne ko man question bi ma lay poser ci xam-xam laa koy teg bu ma tontu ci benn tontu ma ci xam-xam ne ko bismillah mu ne ko nee ngeen yonent yàlla Muhammad dafa ñaanoon weer wi xar ñaar yéen yéen a ko wax mu ne ko waaw loolu alxuraan la sax am na saar suratul inshiqaq ba ñaan weer wi xotteeg mu ne waaw man loolaa lay léegi nag la la ci loolaa lay laaj ma tontu ci xam-xam nag ma tontu ci xel na bismillah mu ne loolu lu tax waa Màkka rek a ko gisoon ñu benn àdduna bi ñeneen gisuñu ko mu ne ko c'est bien ma tontu la ci xam-xam du yéen nee ngeen Isaa dafa ñaanoon benn waaj benn taabal jóge kaw asamaan ne cëpp ci suuf mu ne waaw mu ne ko yow lu tax lekkoo ci waaw ñu ne ko wax nga dëgg daal dem toogi keneen na tëll daan ne ko man sama question du ci xam-xam ci xel la te daa daw xam-xam ndax gis na ne mbokkam mi fët nañ ko mu ne ko man sama question du ci xam-xam de xel la mu ne ok ñëwal lan la laaj xalifa lan la laaj non boobu mooy bu mujj bi soxna Aïcha mu ne ko man de dama gis jabaru yonent bu ñuy tuumaal njaaloo est-ce que loolu jaadu na ay xel nag nag ma doon ci xel de mu ne ko seen yonent bi jabar ji dañ koy tuumaal ci njaaloo mu ne ko mun naa tontu mu ne ko tontul mu ne ko ndaw su am doom ak nda te amul jëkkër ndaw si am jëkkër amul doom bu ñuy tuumaal njaaloo kan la ñu war a tuumaal njaaloo wala déggu leen wax bi ma waxaat ko ñaari jigéen a ngi nii kii daa am jëkkër amul doom kii amul jëkkër am doom ñoom ñaar ku njaaloo mu ne ko ñaar yëpp benn amu ci Isa la ak Aïcha Mariam la ak Aïcha Mariam amul jëkkër mais am na doom waaye njaaloo wut de sax na Aïcha am na jëkkër waaye njaaloo wut amul doom waaye njaaloo wut mu ne ko benn amu ci ndax ñaar yëpp alxuraan moo ko setal bu fekkee Aïcha la inna allazina jaa'u bil ifki usbatun minkum naafiq yi ñoo keree loolu bu fekkee Mariam nag yàlla moo ne inna masala isa inda allah ka masali adam xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fa yakun alhaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin inna masala isa inda allah ka masali adam jeex na kon ñaar yëpp amu ci mu ne ko wax nga dëgg kooku daa dem toogi keneen ki ñëw di ngand ngandalu ne ko isa moo gën a set muhammad isa atharu min muhammad mu ne lu tax borom xam-xam bi ne ko limaza mu ne li anna ziwaaj najas ndax sëy dafa salte te Muhammad sëy na Isa mësta sëy moo gën a set ah boroom xam-xam bi daal di yuux boroom xam-xam mu ngi tudd al imaamu Baqilaani mu ne ko kon yéen da ngeen a dof kon Isa moo gën a set papam ndax ne ngeen yàllaay papam kon doom ji moo gën a set bàyyi ji rek waa ji daal di yuux ne ko qulta xaqan wa nataqta sidqan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah église ba yëpp tuub kon mu ngo kon sunu borom jalla jalaaluhu mooy koo xam ne ay mbiram a ngi nii danañu seede ne keroog bool bi wàcc na jóge kaw asamaan ñu lekk ci wa nakuna alayha min ashahidin qaala isa ibnu mariam qaala isa ibnu mariam isa ne daal di tàllal yàlla ay loxoom ndeysaan allahumma yow sama boroom allahumma yow yàlla rabbana sunu boroom gis nga sànq luñ ko waxoon moom rabbuka walal moom tey mu ne leen kon dëgg-dëgg bu topp bu leen toppoon moom lan la wax allahumma rabbi ay gis nga moom dafa xam da mu ne allahumma rabbana yow yàlla sunu borom anzil wàcceel alaynaa ci ñun maidatan am ndab min assama bu bàyyeekoo asamaan bu fees dell ak lekk allahu akbar soo demee ci tafsirul jalaalayni bu ñu lay wax taabal bi ni mu toll ñu lay wax lekk yi ci nekk allahu akbar da nga xam ne yàlla mooy ponkal yàlla du moroom Souleymane mos na wax yàlla damaa bëgg nga may ma ma dundal adduna bi yàlla mu ne Souleymane mënoo ko waay ah mënoo ko na yàlla ma ne loolu xam ngeen Souleymane dafa amoon kattan mooy yiite woon nit yeeg jinne yi su daan dem jinne yi dañuy naaw es di ko escorté fu ñu war a dem weer fu ñu war a dem at weer la koy dem gudduwuha wa rawaahuha char weer la koy def daal di yegg ndax jinne yi ñooy nekk ngelaw ñooy lalu ay baas nekk mu tegu ci ñu naaw ak moom doole jooju Suleymaan xool ko rek ne yàlla damaa bëgg a dundal adduna bi yàlla mu ne mënoo ko ñetti fan yàlla mu ne mënoo mu ne ñaar yàlla mu ne mënoo benn fan yàlla mu ne mënoo waaye essayel Suleymaan daal jël 4 kilomètres carré togg ko ay lekk jinne yi jël ay cin yoo xam ne ñoo ëpp suñu cin yi togg ko 4 kilomètres carré teg taabal yi teg lépp bi lekk bi pare ñu war a ndékki Souleymane mu ne yàlla pare naa de waxal mbindeef yi yàlla yi nekk ci àddina bi nañ ñëw lekk benn mbindeef moo moo génn ci géej gi daal di lekk cin yi kudd yi taabal yi paaka yëpp daal di koy wan ne ko Souleymane ragalal yàlla ci man benn bi nga ma jox yàlla ñettam la ma doon jox par jour suuraguma de kooku rek moo lekkagum nit ñi lekkaguñ ñeneen lekkaguñ rab yi lekkaguñ lekk bi jeex Souleymane sujjóot mu ne yàlla delloo naa la ko de yow yàlla yaa ko mën xoolal wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha wa ma min dabba la yàlla wax de daaba lépp luy dukkat ci kaw suuf yàlla nee na maa lay dundal xam ngeen daaba yi ci ak kaw suuf ñaata lañ xool leen gaynde lu muy lekk yàpp bu tànge jër te bis bu nekk mu ngi lekk léeg-léeg nga gis gaynde ci internet bi ñu ne la gaynde bi am na 40 ans 40 ans yëpp lu mu doon lekk yàpp day jënd dañ ko koy indil yàpp bu bees tax lay lekk waaw moom sax yenn saa yi nga dégg ñu ne du lekk lu mu reyulon te bis bu nekk moo ngi lekk ko ku koy jox lekk xoolal jën yi ci biir géej am na ci jën yoo xam ne tey ji bu ñu génnoon fi xejuñ ci jàkka ci ku leen jox ñu lekk yenn saa yi ngay gas suuf si nga gas gas gas gas gas ay 2 mètres 3 mètres nga génne sax boo xam ne mu naan nii ci biir suuf si di kooku lu mu doon lekk foofu lu muy lekk ku koy jox mu naan ku koy jox mu lekk lan lay lekk ba toll noonu kan mooy togg palaatu ceeb yekkal ko kon yàlla la wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha ñëpp yàlla leen di dundal sunu borom yow yàlla wàcceel ñu bool boobu ñu lekk ci mu jóge asamaan su ko defee takkuunu la naa dana nekk pour ñun iidan feet li awwalina ñeel ñu njëkk ña wa axirina ak ñu mujj ñi waaw da nekk feet pour nit ñu njëkk ña buñ ko jàngee ah ak ñu mujj ña waaye dana nekk wa ayatan minka dana nekk benn kéemtaan boo xam ne alaama minka ala qudratika benn kattan buy wane ne yow yàlla borom kattan nga benn mandarga buy wane ne yàlla yow borom kattan nga waaye borom yërmande nga waaye kat sa yonent bi dëgg dëgg dëgg dëgg yaa ko yónni ndeysaan bool bi daal di wàcc bi mu wàccee ñii ne kii moo mën a njabar la ilaha illallah ñii ne ñun de lekkuñu wóorul ñenn ñi daal di dóor ba gàtt ba pare daal di ne uh lekk ba suuf lekk ba suuf xëpp ci suuf daal di weddi gis nga de mu nga wa ayatan mink waaye warzuqna yow yàlla yal nag ñu wërsëgal wa anta xayru raziqin wërsëgalaa koo ne yow yàlla yaa ci yaa leen yaa leen yaa leen di wërsëgal yàlla mooy borom wërsëg léeg-léeg nit di dayu di wuti wërsëg fekk yàlla mooy wërsëgalaate wa anta xayru raziqin waaw war razaq zu quwatin matin yàlla mooy joxe wërsëg doomu aadama dañ ko sant rek na yëngatu dama nga kër kër yi waaye yàlla mooy joxe loolu soo ko amee su nekkee sa pas-pas yëngatul yàllaay maye lu mooy lépp looy def moo tax yonente bi nee na bu ngeen di wuti rafetal leen ko ndax yàlla mooy joxe boo xëyee rek génnal lañ la sant boo xëyee génnal demal nga uti yàllaay joxe te wallahi ku génn këram di uti ngir yàlla bala muy ñibbis am lu muy indi ci kër gi maadaama yàlla tax nga génn waaye nag ndeysaan sénégalais ñoom dañuy xëy tëdd di nelaw abara naan yàlla maa ngi nii tëdd de ginaar laa bëgg a añee nu ma ginaar gi fekk fii léegi léegi qaala allahu yàlla mu ne inni man munazziluha maa ngi koy wàcc aleykum ci yéen maa ngi nii di ko wàcce de inni man yàlla munazziluha dinaa ko wàcc aleykum ci yéen waaw gis nga soo demee ci siyaa yi ñoom dañu ne yàlla wàccewu ko ndax yàlla ne yàlla daf leen wax question bi moo tax ñu ragal inni man munazziluha danaa ko wàcce aleykum ci yéen waaye wa man yakfur ba'da za ba minkum képp ku weddi ginnaaw loolu ci yéen ñu ne ii kon yàlla bu mu ñëw waaye yàlla da ko wàcce kon du dëgg inni man munazziluha danaa ko wàcce aleykum ci yéen waaye fa man yakfur cey su ngeen lekkee ba pare su ngeen ma weddee baat minkum ginnaaw loolu kenn ci yéen weddi fa inni man yàlla u azibuhu dinaa ko mbugal azaban mbugal koo xam ne laa u azibuhu ahad min al alamin duma ko mbugal kenn ci àdduna te gis ngeen baat yëpp baat yëpp dafa ànd ak tëkku dafa ànd ak dëgër moo tax ñu ne ñi yàlla di gën a mbugal ëllëg yowmal xiyaam mooy ñett ñi ala firawna ak lan munafiquuni ak ñan ak ñii mooy borom ndab li ndax lan sartale leen yàlla sartal danaa ko wàcce waaye bu ngeen lekkee ba pare cey ku ma weddi ci yéen ginnaaw loolu mbugal mi mu koy mbugal du ma ko mbugal kenn ci àdduna kon nag mbokki jullit yi lii lépp li leen ko jural mooy ñàkk a teggin munoon na ne yàlla munoon nañ ne Isaa ñaanal ñu sa borom rek mu wàcce benn ndab ñu lekk ndax yenn saa yi dañ doon wax Moussa ñaanal ñu yàlla yaa Moussa daal di ñaan wala jël yatam dóor ci montagne montagne bi explosé fan fajarat min husnata asara aynan qad alima kullu unaasin mashrabahum yàlla ne leen kulu wasarabu min risqillaahi wala taasaw fi l ardi mufsidin dañ doon dox ba mar ñu ne Moussa dañoo mar Moussa jël yat bi dóor montagne yi explosé ñu naan ñu dox ba naaj bi tàng ñu ne naaj bi tàng na Moussa ñaan yàlla yàlla keral leen kon banu Israël amul xiiwal gu leen yàlla defal ñu xiif yàlla wàccee leen mën na ak salwaa ñu lekk firaaw na dàq leen yàlla labal firaaw na ci biir géej gi rëccal leen ñoom tey ñu ñëw dajeeg Isa naan ko laajal ñu sa boroom ndax sa boroom mën na wàcce benn taabul jógeeg asamaan ñu orné ko quoi ñu def ci ay pain chocolat ak brioche dorée quoi ñu lekk yàlla mu ne isaa ne leen ragal leen yàlla ittaqullah kon laaju ñàkk teggin la ñu laaj yàlla moo tax fa muy jeexee yàlla ne leen su ma ko wàccee ba ngeen lekk ba pare wala ma wàccee ko sax ba ngeen gis ko ginnaaw loolu ngeen weddi ma mbugal mi ma leen nar a mbugal du ma ko mbugal kenn ci àdduna bi kon loolu mooy darsu tey noo ngi jéggalu njuumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu amee ay laaj yow yaa njëkkee ah bismillah